waaw asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi lay nuyu yu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax comme niñ koy faral di defee si yenn émission yu bari tey jii nag émission bi dafa dalal ndaanaan boo xamante ne ku ne xam na ne euh, politicien bu mag la fii si Touba euh, euh, fi ñuy wax corniche belel forage baylaat mu doon soxna Adama Diop di ànd ak sëñ Assane Mbacke soxna Adama ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar bu baax di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel. di bàyyi xel aadama ak fépp foo mën a nekkee di ziar tamit Serigne Assane Mbacke bu baax moom mi nga xam ne moom laa àndal ci politique ak sëñ Cheikh Thioro mi nga xamante ne moo nekk suñu coordinateur fii ci Touba di ko ziar di ziar képp koo xam ne yaa ngi biir Pastef rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. ndeysaan di ziare képp koo xamante ne yaa ngi biir Pastef di la sa wàccuwaay ndeysaan noonu la ko soxna Adama waxee euh, bëggoon nañoo xam tuuti rek si soxna Adama bala ñoo dugg si politique bi soxna Adama mooy kan ak politique bi maam dangaa tëb maanaam da nga koo doon ci say waajur. waaw mën naa ne ndono la ndax dama juddu fekk sama papa di politique kon su ma màggee politique ndono la ci moom. sa papa nu mu tudd. man sama papa Idrissa Diop la tudd te xam naa ne ku dégg turam sax ñu bari dinañ ko xam euh, maa ngi juddoo Mbacke euh, yaroo Touba moom nag Ablaye Wade la mus di àndal. sama papa moo njëkk a politigal mitinal Ablaye Wade Mbacke booba xale laa mitin boobu boobu jàpp naa ne ci eh, fecc laa ko doon defee waaye bi ma màggee nag loolu dafa nekk don ci man euh, mënuma ci dara kon nag ma ne damay opté pour ma politique eggale sama papa li nga xam ne euh, moom la bëggoon def euh, yàlla weddi maa ngi ñaan yàlla xare ko àjjana suuf oyof tooy ci kawam. soxna Adama maanaam bi mu duggee si politique ana moom kan la tëb tëb rek di àndal. ak ak jamono ji ñu toll euh, maanaam soxna Adama nan lay taxawee si politique bi maanaam moom dafa dafa dafa tëb tëb dugg si wala papa moo ko teete ba mu si fii nii wala nu mu demee noonu maam yow yow maam li ñu bëgg a leeral mooy bi ngay bi dugg si politique da ngaa da tëb tëb dugg si rek wala dañ la see dugal daal. waa dama euh, tëb tëb dugg ci comme li ma wax kenn ku ne da ngay xool sa dëbbinu yaay wala sa dëbbinu papa. man dama ñëw xool sama dëbbinu papa loolu moo tax ma politique ndax sama papa da def politique sociale li may wax ñi nga xam ne xam nañ Idrissa jóob dëgg ci Mbàkke Bawal xam nañu sama pàpp ci social la si def euh, politique boobu nag ak tey bokkatuñu kon loolu moo tax ma xool Sénégal métti na euh, ma gis tamit ne biir APR laa mu sa nekk maa ngi doon ànd ak ku ñuy wax jooja ñaan fii ci Touba maa ngi koy nuyuwaale moom Lat jóob la doon àndal waaye bi ma demee ba ànd ak ñoom gisuma sama bopp foofu ni ñuy doxee neexuma ma ne nag il est temps ma génn foofu pour gis euh, Ousmane Sonko kilifa nag moo ma boole ak moom xëyuma xëy rek ñëw biir parti Pastef kilifa maa ngi koy nuyu moom dina xam kilifa ak daaru Moussi la maa koy nuyu bu baax a baax a baax ndax moom moo ma indi ci parti Pastef boole ma ak sëñ Cheikh Thioro coordinateur Pastef pour ma ànd ak ñoom xeex xeex bi ndax man ku ne xam ne ne gaynde laa ndax deretu gaynde mooy daw ci sama yaram te xam naa ne liy nelaw ci man bis bu ma ko yéeyee parti Pastef dinañ xam ne ndaanaan dugg na biir Pastef liy nelaw ci moom bis buñ ko yéeyee danañ xam ne ndaanaan dugg na biir Pastef loolu soxna Adama wax mu doon li nga xamante ne lu am solo la soxna Adama bëggoon nañu bëggoon nañ laa laaj maanaam noo duggee noo duggee si partie Pastef yi bi ñu euh, si dugg euh, déggoo si ay wax wala nga si am yenn xeeti jafe-jafe yeeg yooyu noonu. waa dund naa ci ay jafe-jafe ndax APR gu ne xam na ne foofu ku fa nekk euh, lu la neex def lu la neex wax. suñ suñu déggee sa wax daal yow APR nga njëkkoon a nekk daal. voilà APR laa njëkkoon a nekk waaye bi mu fa gisul sama bopp nag Ousmane Sonko ñëw indi benn kii boo xamante ne neex na Sénégalais yi ma ne nag man xale laa ndaw laa. te yoon bi ma bëgg jaar mooy gis naa ne Ousmane Sonko foofu la jaar muy jub ak dëggu ak gëm yàlla teg lépp ci ak jaamu yàlla ak dëgg ma ne nag man damay génn biir APR dem biir Pastef mais soxna Adama est-ce que doonu nit ñooñu nga xam ne liñ naan euh, euh, maanaam weñ la fu fu fu mango am rek mu tag fa doonu façon nit ñooñu noonu wala wala day jàppale Ousmane Sonko rek te yàlla. non non Adama bu doon xool loolu du génn du génn biir APR. foofu la xaalis bu ëppee foofu la njuuj njaaj yi ëppee foofu la dóor yi ëppee te ñoom ñoo yor réew mi kon ku ne xam na ne bu may wut xaalis APR laa koy wute waaye duma ñëw parti Pastef Pastef ñun ci jaamu yàlla lañ ko teg muy li nga xamante ne projet bi nga xam ne Ousmane sonk ñëw na incarné ko ñu ànd ci ak moom kon ku ne xam ne biir Pastef yow yaay jël sa alal di ci def ngir lan Ousmane Sonko ëllëg mu génn ñu ci situation bi ñu nekk ak dund bi ñuy dund pour metti na pour ñu génn ci loolu dem ci loolu kon xaalis dugaluma foofu ndax ku ne xam na ni sama sama doole néew na bariwul waaye maa ngi yëkkati li nga xam ne muy cotisation yi nga xam ne ñu ngi koy laaj ak yeneen ak yeneen ak sama baas politique li ñu soxla ak li ñu laaj man sasuma ko kenn dama ko ñëw ci sama moyen ni bopp pour di ko def pour jàppale sama askan. ndeysaan da koy def si moyenu boppam ngir rek jàppale aw askanam euh, euh, soxna Adama euh, politique bi yaa ngi siy dund ay jafe-jafe si jamono ji ñu toll ndax ku ne xam na ne politique yomb. waaw maa ngi ciy dund ay jafe-jafe ne xam na ni moom boo nee Ousmane Sonko nga àndal rek jafe-jafe day daal di ñëw jafe-jafe bi mënul weesu mooy dama ciy dégg ay saaga dama ciy dégg lu metti dama ciy dégg sax loo xamante ni des fois damay toog bëgg a bàyyi waaye su fekkee li may woote. muy Sénégal moo ma ñor réew mi moo ma ñor procès Ousmane Sonko dañoo bëgg a ànd ak moom ba 2024 damay taxawaat nag ma gëm sama bopp nag xam ne euh, balay neex dafay metti bala mu ne wor day naan nox-nox. ndeysaan bala mu ne war-war danaan nox-nox loolu la Adama Diop wax mu doon lu am solo mais ba léegi euh, pour man maanaam euh, li ma la laaj tontu goom si mooy est yaa ngi si dund maanaam lu metti loo xamante ne maanaam. parce que ku ne xam na ne jamono ji ñu ñu toll sànq am na lu ma li junj nee naa la est-ce que Adama doonoon koo xamante ne maanaam dafa gis ne jamono ji nit ñëpp dañoo ànd ak Pastef rek mu dem fa mais est-ce que doo si dund itam euh, ay jafe-jafe yu métti sa digganteeg sa waa famille wala koñ bi nga dëkk et cetera. waaw ma ne wax naa la ko léegi nee naa la maa ngi koy dund benn ci sama yaay ndax sama yaay dafa nekk yaay bu brave nekk yaay boo xamante ne buggul ñuy dégg ci doomam loo xam ne leneen la te politique boo koy def rek des na la saaga ndey di nga ci dégg lu ne moo tax chaque jour rek damay sàmm sama image di xam ki may waxal fi may dugg ak fi may bàyyi ndax buñ la soxlaa li ñu bëgg nekkoo ci rek yàqu-yàqu mën na diggante eh, mën na am moo tax sama famille ñii dañoo nangu ñii bañ waaye nag dama leen a xamal ne leen procès bi Ousmane Sonko indi moom moo ma ñor te Sénégal moo ko ñor te Sénégal nag képp koo xam ne bëgg nga lu baax te bëgg nga dundin bi ñuy dund ëllëg suñuy sët ak suñuy sëtaat ne ci jàmm kon projet boobu moom Euh, wax dëgg yàlla dama sàkku samay sama famille ak sama yaay mu bàyyi ma ma doxal ba 2024 gunge Ousmane Sonko bu duggal ko pale incha allah ci kàttanu yàlla. waaw mu mel na sax euh, avant ñuy ñëw am na lu ñu junj loo xamante ne euh, wax nañu ko si Adama te lépp rek maam jafe-jafe yooyu li tax mu dund ko mooy yàlla ak Ousmane Sonko ci mën naa ne kër gi nga xamante ne fa la fa la nekkoon di jaamu yàlla loolu mën nga ñu see dikkal. waaw mën naa cee dikk ndax xam naa ne Sénégal ñi ngi may seetaan wax naa ko tey ci sama benn vidéo di wax ne usmaan Sonko jamono ji mu toll ku bëgg a taxaw ne ma doo ci wax ma daaneel la jéggi la jàll dem wax ci Ousmane Sonko ñëwaat la jéggi la jàll ndax sëy moo gën a foor dèjà te xam naa ne moom sama borom kër sax xañ na bonul xañ na bëgg na parti bi waaye guddee gi ma doon guddee di dem ci monté céleri ak guddee gi ma doon guddee ak yeneen ak yeneen amaana ci góor dem na ba nga xamante loolu xawoon na ko déranger moom it mu ne nag il est ma bàyyi te man nag lu dul politique instant bi politique moo ma ko gënal moo tax fi mu toll nii nag ma ñëwaat sama kër yaay pour ma toog pour ma mën a nag jël sama dund gépp ci li ci des bu ma ko yàlla mayee mayee ma fekki aktal ba 2024 pour ma mën a gunge Ousmane Sonko man lu dul gunge Ousmane Sonko ñor mu ba 2024 maanaam suñ déggee sa wax daal maanaam Ousmane Sonko mi yàlla dogal ngay àndal euh, ci biir loolu ak yenn programme yi ngay faral di dem euh, di ñëw moom moo tax nga am jafe-jafe si néegu sëy bi daal mm, waaw loolu moo waral jafe-jafe waaye sante naa ko yàlla suñu borom nag ndax instant bi maa ngi ànd ak leader boo xamante ne ku ma naw la ku may encouragé la man parti Pastef du ma fa silib caaye laa fa ndax kilifa moo ma boole woon ak euh, sëñ Cheikh coro bi ma demee tamit ba toogaat kilifa moo woowaat te ñoom ñëpp Pastef moo moo leen ñor yëkkatiwaat sama loxo dem yóbbu ko ci sëñ Assane Mbacké ne sëñ Assane Mbacké dama laa dénk aadama pour nga jàppale ko ndax aw na yoonu politique te xam nga politique ku ko ku koy def laaj na moyen ndax da nga dugg ci ay projet di nga dimbali tamit euh, euh, sa base yu politique te loolu lépp pour nga am wéeruwaay ndax boo amul wéeruwaay da ngay yomb ba max loolu moo tax ma dem wéeru ci sëñ Assane Mbacké di ko nuyu bu baax a a baax euh, ko jaajëfal di wax ne man moom ba 2024 incha allah ñu ànd fal Seydina Ousmane Sonko mu sell mi xol bu sedd tax ma di ma ko di ma ko dunde mooy ki nga xamante ne moom la ñëpp gëm muy Seydina Mouhamed amoon na ay baatu ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam amoon na baati ginnaaw muy Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñëpp yaakaar tamit amoon na ay baati ginnaaw kon baati ginnaaw bu fekkee ne da nga bëgg a dem aw aw yoon na kenn du la fakkastal doo egg fi nga jëm force da ngay am ay xeer muy metti ngay muñ muy metti ngay muñ bis dana ñëw nga egg fi nga bëgg a egg. mais mais mais ngay ngay metti muy muñ est-ce que du am xeer wu ñëw maam far la far la gaañ xam ay xeer moom maanaam ku koy dóor moom su yàggee moom. mbaa doo gaañu. non du ma gaañu ndax ki nga xam ni moom laa bëgg ci politique ba tax ma bàyyi lépp teeku muy Seydina Ousmane Sonko jaral na ma ko te moom pour pourtant xeer yi ñu koy sànni moom moo ëpp am na yaay am na doom am na famille te moom li ñu ko teg moo gën a metti ba tey kenn dégg ko mu wax. Euh, dafa mel ne euh, soxna Adama suñ juum euh, dañu dañoo nekk si fin de émission bi ana soxna Adama ban message la waroon la la bëgg a jàllale avant ñuy tëj. waaw sama message bi mooy maa ngi ci ay projet di ñaan képp kuy patriote ñaanal ma projet bi yàlla suñu borom may ma ci ndam maa ngi liggéey liggéey boo xam ne ci suuf bu jugee ñëpp dinañ xam kan mooy aadama Adama toogul ci ruqam rek wut bës di nekk ci TikTok bi di wut bës non man ba ma amee bës yàgg na damaa juddu judduwaale bës politique ñëwuma fi ngir intérêt andiwuma fi kon damay toog ca njuuj njaaj ma waaye nag bëgg naa ne Sénégal métti na ndaw laa comme ñëpp kon damay ñëw xeex ci xeex bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi dund mettit instant bi dañuy wax na ne ku njëkk a daw da ngaa ragal waaye ku ne méttiwul rek doo góor euh, Sénégal nag day def ragal féete day xañe wërsëg waaw ragale féete day xañe wërsëg ku sell ki wax na ko muy Seydina Ousmane Sonko euh, moo tax nag man ma am féete sama féete nag moom ku ne xam na ko muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi moo nekk sama féete euh, ragaluma ci nag dara dawuma ci dara maa ngi ciy dégg lu ne du ci dund lu métti lu ne même sama place bi nga xamante ni moom laa doon liggéeyee sax bi élection yi jàllee euh, fi nga xam ni moom laa ko jëlee woon muy APR dem na ba nga xamante ne maa ngi ci dégg ay kàddu yoo xam ne dañu ne dañuy nangu place boobu ma ne ku ko nangu ma dese ak yàlla continuer di liggéeyal Ousmane Sonko ba 2024 lu ma ci góobe gàll mais soxna Adama est ce que moo ngi jàppale waa koñam euh, parce que ku ne xam ne ne politique euh, ku koy def koñ boo nekk dina am lu ñu lay yaakaare est ce que Adama yi dund loolu waaw sama waa koñ yaakaare nañ ma lu bëri maa ngi dund ak ñoom lépp loo xam ne maa ngi koy gis su ma ko indee sama koñ ñu kontaan ci maa ngi ci ndax aadama moom nekkul aadama foraasu bàyyi laat kese Touba fépp foo taxaw ne aadama jublaay laajte dinañ ma xam ndax man damay teel a xëy di guddee wàcc bëgguma daray góor damay teel a wàcc di guddee wàcc bëgguma daray góor loolu am am na solo soxna aadama ana lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy di santaat yàlla bu baax a baax di sant euh, sàppar mi di sant tamit ñëpp ñoo xam ne ñu ngi toogoon fii di ma gunge di sant sama yaay bu baax a baax moom mi nga xam ni moo ma dooleel bàyyi ma nag ci terrain bi may liggéey di di di xëy te xoolut fan laay dugg ci jigéen kon loolu ku ne xam na ne yaay boo xamante ne bëgg na li ngay def rek loolu moo tax di wax ne ndaw ñi nanu gën a jàpp xam ni jamono ji dana metti ndax koo xam ne yaa ngi parti Pastef da nga dégg lu ne waaye dangay ngay tëx nga gumba lu def ni comme Seydina Ousmane Sonko heure bu xeer yi gënee ñëw boobu la gën a jàpp ndax dafa am ngëm-ngëm ngëm-ngëmam mooy len muy Sénégal moo ko ñor. jërëjëf ñoo ko déggandoo soxna Adama li mu wax am na solo lool macha allah euh, bëri na loo xamante ni xëy na bëggoon nañ ko yaatal waaye temps bi moom moo ñu ko mayit parce que ku ne xam ne ne technicien bi jamono ji ñu toll moom moom moo ngi ñuy signalé euh, kon fa la ñuy jaaree rek euh, di jaajëfal soxna Adama bu baax a baax di leen jox dig daje si beneen anam ak beneen émission jërë ngeen jëf